jërëjëf mbokk yi nga xam ne yéen ñu taamoo bàyyi xel ci seen mobile TV Al Azhar Touba ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci bàyyi xel bi di leen ndokkeelaat ak jàmm ci at bi nga xamante ne ni euh, ci la ñu dugg di 1437 euh, dëppoo ak nag euh, daanaka ci début année bi rek ñu daal ci amal li nga xam ne moom moo di bis bi ñu taxaw tey di bis bi nga xam ne ci la ñuy fàttaliku gane jamono Serigne Abdoul Khadir Mbacke nekkoon ñeenteelu xalif ci Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul Euh, ginnaaw bi mu defee ci xilaafa gi nag lu toll ci fukki weer ak euh, benn liggéey liggéey bu am solo ci yoonu murit euh, naam diir bi nga xam ne toog na ko ci xilaafa gi sax. yàggul waaye euh, def na fi lu am solo loo xam ne nii ba léegi taarix euh, mi ngi koy fàttali ñi nga xam ne ñoom ñoo di génération bu mujj bi ndax euh, bu ñu fàttali moom lañ doon dàkkentale imaamu imaam yi ngir bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo lu ñu julli si jumaa ji daanaka waxtu juróom fii la ko daan nekk koo xam ne nii nit ku toppoon sunna la ci jëmm ji ak ci lépp mu nekk daal mu def daal liggéey boo xam ne nii liggéey bu am am solo la yaakaar naa ni ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu gën a géeju ci taarixu yoonu murit andi nañ ci ay témoignage yu am am solo ñu ngi fii nag taxaw ci ginnaaw fi nga xam ne nii fi lañu ko fi lañu ko denc tey jii mbooleem taalibe yi bàyyi ko fépp ci àdduna bi ñëw nañ di ziar si fi nga xam ne moom moo di mu tedd bi waaye itam njabootam ku ci mel ne Serigne Cheikh Mbacke mi nga xam ne nii moom moo nekk ci bopp njaboot gi jamono ji waaye tam ñu gën ci ràññee tamit Serigne Bassirou Mbacke Abdou Khadir mi nga xam ne naam euh, kenn la ci njaboot Serigne Abdou Khadre waaye itam moom moo yore kàddu yoonu murit ma tax na délégation yu takkoo takkoo takku tey jii bu ñu xëyee dem nañ fi nga xam ne moom moo di këram saafonteeg moom waaye itam ginnaaw bu ñu jógee ci Serigne Cheikh Mbacke ya pare jàll nañ ci Serigne Bassirou Mbacke Abdou Khadre ak mbooleem naa ni loolu rek la ñuy daal di def euh, ab wan leen li nga xam ne moom moo jot a xew bu ñu demee si barab ba pare jàll ci Serigne Cheikh Mbacke dem ci Serigne Bassirou Mbacke Abdou Khadre xool tamit délégation yi nga xam ne ñëw nañ tey ci bis bi euh, def seen ay ziar ngir jëmmal tamit a gane jamono ki nga xam ne ni moom moo di Serigne Abdoul Khadir Mbacke ñuy fàttali ne mi ngi gane jamono ci atum 1914 fële nga xam ne moom moo di ca Ndaam bëri na lool ñoo nga xam ne def nañ ay témoignage ci biir euh, wax ay euh, xew-xew yoo xam ne xew na ginnaaw bi mu ganee jamono euh, ci ku tedd ki wax jum ci wax ak jëf yoo xam ne ni jëf na ko ci ci gane jamono jëmm ji seetlu jooju kon ñu bàyyi nag image yi jërë jëf mbokk yi ba ci kanam حج أو كراهة له وليس المنكرا أحمد من دهل وموت وسمن لم تنه وقد كفاني الهمم نفعني الذي همن وبكم لم ينهيا عن الملكم إيجاد كل ممكن وتركه koy defee ci doomi Sëñ Tuubaa yëpp parce que la ko dalee Cheikh Moustapha ba Cheikh Mourtada dégg nga li sëñ wax ci ñoom jàngal na leen yar nañ leen teg nañ leen ci yoon gis ñu benn doomu Sëriñ Tuubaa bu mas a def infraction nit ñi xam ko loolu yàlla dogal na ko te koo ci waxtaan waxtaan nga morom kon sëñ Abdou Khadar mi nga xam ni nekk na xalif mutul sax un an ci xalifa bi waaye bu ñëwee benn baat la wax dafa ne istiqaama ak njub. te xam nga njub lan lay tekki ci ab jullit foo la teewul murit ci wàllu martaba nag miinuma baatin waaye xamoon naa ne keroog bi mu gënee àdduna Serigne Touba wax na ni ñu koy tuddi parce que maam Thierno jiite woon délégation la dafa ñu koy tuddi fexe leen bay jaar fu leen ñëpp mën a gis ndax gan googu ngeen jëm yéen ñu koy tuddi ku leen gis yaram alama yaram yaram alamal la sabar yàlla na ngay maye ba léegi ñun diw am na dara dan nan bi lay nit ñoo bari wax waaye yàlla lay yàlla képp képpay maye te euh, euh, Cheikh Samba Diarra neewoon na fay yàllay fexe yàqkat yëgu fa raw na ba raw na xel kon bu ne yàlla diw am na nangam ci may bu ko weddi sëñ bi xaaral mën naa am loolee ndax lépp euh, dundam gépp ci islam la ko teg jumaa ja këram julli waxtu yu juróom ñaanal jaami seen aajo fi lii de xam naa ko ci moom. jàngat bi de mooy l'histoire delloo si na boppam ci liggéey bi nga xam ne maam borom Touba liggéey na ko fi bàyyi ko fi. Euh, mu lebal yàlla ker yàlla fee ko guddi ndax nit ki boo bëggee xam tolluwaayam da ngay seet ñamu mu yar bàyyi fi bokk na ci ñooñu tey nag ki ñuy màggal tey muy Cheikh Abdoul Qadir Mbacke ibnu Xaadimi Rasul sallallahu alayhi wa sallam am na ay adjectif yu bare yoo xam ne benn bu ci nekk doyoon na mu nekk ki mu doon bokk na ca li mu taxawee ci wàllu jàkk ak rolam ci biir Sénégal li mu nekkoon imaam ba ñu koy dàkkantale imaamu imam yi loolu bu fekkonte ne du dara lu dul loolu jar na ñu dajaloo fii tey ngir màggal symbole boobu nga xam ne bàyyi na ko fi ci importance loo xam ne dafay représenter benn pilier ci lislaam muy wàllu julli mu ko doon defee ci façon boo xam ne euh, àndoon nag di orienter askan wi di leen gindi ñaareel ba mooy diir bu gàtt boo xam ne yàlla teg na ko ci jal bi ci xilaafa bi waaye mu nekk diir boo xam ne gàttul ndaxte dafa sakkan ay minutes la yoo xam ne da koy calculer ay ay ay at mu nekk loo xam ne itam marqué na jamonoom bu ma doon tënk kan mooy Cheikh euh, Abdoul Qadir ibnu Xaadim Rasul sallallahu alayhi wa sallam damay naan doomu daara la joo xam ne marqué na jamonoom marke na jamonoon jamonoom du ci juddoom waaye ci judduwaatam mu fexe ba nekk ki mu nekk waaye itam ñi mu fi bàyyi tey koo ci téye rek da ngay naan beneen Cheikh Abdoul Qadir a ngi nii Serigne Bass Abdoul Qadir ak ñi nga xam ne euh, góor gi meññal na ñoom ñëpp kenn ku ci nekk tey da ngay naan góor gi làqu na waaye demul ndax ñu ngi fi bàyyi ñu ngi continuer di yëkkati drapeau boobu nga xam ni moom taxawaloon na ko te mooy euh, woote jëmale ci yàlla di digle lu baax di tere lu bon. di amaat mbégte laaj ñu ci koo xam ne sawar nañ cee wax ndax boo ko dee waxtaanee mooy yoonu murit boo waxee Cheikh Abdou Khadir yaa ngi wax seex Moustapha Al Karim yaa ngi wax Serigne Fallou yaa ngi wax Cheikh Mouhamad Amin yaa ngi wax sëñ Bassirou Mbacke yaa ngi wax ci sëñ Abdoulaye Borom Dër bi wax ci sëñ Ibrahima Mbacke. yaa ngi wax ci sëñ Abdul Ahad waaye yaa ngi wax ci seex Abdul Xaadir mi nga xam ni moom ngay wax yaa ngi wax ci Serigne Saliou di wax ci seex Soy bu Mbàkke di wax ci seex Murtada kooko yoonu murit yaa ngi wax ci mbooleem ko toppoon sëriñ Touba ndax moom euh, ku sunnu yiw la woon waaye doy na sëkk rek bis bi mu ganee jamono sëñ Touba ne maam Thierno demal joxe kaw tur ca ndaam bi ngay demee bi ngay dellu koo fi dajeel ñu jéggal ko. imaginer liir bu gane jamono nga xam ne bu fekkonte ne nii comme ñun bi ñuy gane jamono dañ naan amagoo bàkkaar ndax toggagun la jëf xamagoo dara yow moment boobu yow ngay ram ramm yow benn moo tax maam Thierno ne ma damaa yéexal euh, tànk yi tudd ma looloo tax mu naaje bi mu dëppee it fu na jaar na fa yéene ñëpp texe sëñ Abdou Khadir mooy ki nga xamante ne yàlla la jàppe woon ki gën a rëy ci àdduna xam nga téléphone am sonné ñu nodd ci jumaa ji bëkk néeg bi décroché téléphone bi nodd gi dal mu jóg ne bërit Moussa ne diglu nodd dégg nodd danaan tekk buñ noppee mu ne bërit bi muy dem ñu ne ko ab Abdou Diouf mooy woote président mu ne nee leen ko yàlla woote na ba noppi xoolal boobu personnalité sëñ Abdou Khadir mooy ki nga xam ne am détail yëpp koo ci waxal sa danaan si Abdou Khadir laa jébbalu woon waaye loolu li nga ci mën a jàngat mooy Serigne tubaa rek ak cëriñ sëriñ bu demee ba am doole nan na ko sant sëñ Touba laataa sëriñ tubaa soxna Awa kenn bëgguta doon sëriñ sëriñ bi jàngale dongab daara la daan doon bu demee ba mokkal ñu jox ko daara ji maraakis yi muy sol mën naa dagg ñamu njaxasaan la daan lekk sëriñ kenn daawu ko may soxna. ab sëriñ mën naa ni daawuñu ko nawloo sax ci réew mi kuy ñaan lu dem boo amee ab dof bu ay yab rab sàdd nga ne ko yóbbul ma sëriñ bi bu ko fajee ba mu wér bu ko soxlaa nga doog ko ko may wala boroomu góom sëriñ Touba nag moo jëlaat ak cëriñ def ko am d'état ministre bi bu yendoo buntu kër sëriñ bi sëñ Bamba tax bëgg koo gis mënu koo gis nit takke ay millions ca Ndakaaru bëgg gis sëñ bi ko mënu koo gis sëriñ Touba tax sëñ Tuubaa moo jilaat ak cëriñ delloo ko personnalité bu njëkk ba kenn bëggu la doon sëriñ waaye bi ci sëñ Tuubaa duggee sëñ Tuubaa ñaar yi fekk maanaam da koo fekk ci axlu Mbàkke man am xam-xam ak fonk kilifa waaye personnalité bi axlu Mbàkke am sëñ Bàmbaa tax te waxuma la lool rek sant sépp sëñ Tuubaa defar na ko moo tax sëñ Musaa Ka ne ko alla kër jaam ak gor ceddoog sëriñ buur ak ki dak mbokk ak ki jàmbur ñëpp a jag jaaraamaa daam ci xarnu bi garab gii bu ci sëñ Tuubaa wéeru woon kenn dootu ko gor day seex fas waa ngi fii ñu koy nda raamal ci ndaam àll wa buñ ne la doomam daan na ci jàng rek dootul bokk ak àll yi sëriñ Tuubaa lu mu laal mu riis lu mu fi bàyyi dootul doon dara bi mu duggee ci cëriñ la sëriñ am valeur noonu la def sëñ Abdou Khadir sëñ Abdou Khadir mooy ki nga xam ne mës na génn fii di julli ji. muy ngelaw mu dem ba ñëw ñu ne ko mbàkke taw bu metti bi ngelaw li mu ne xuus ci taw di julli ji mooy moo gën nga dugg ci kàmba muy tàkk te amoolu ko faj sëñ Abdou Khadir mooy ki doomi sëñ Tuubaa yëpp naw la woon sëñ Abdou Khadir mooy ki fonkoon nitam mooy ki mënoon yëkkati doomu aadama benn waaye nee na ko dégg naa li néew boo jullee mu dem àjjana mu ne ko ak ku bokk ci julli gi waaye war na koo man gis nga Macky Sall moomut moomut Amérique mais su ko neexoon soxna Awa Ndiaye du fi fanaan tey dafa bokk ci nguur ga nguurug yàlla gi nit dina dem ba mel ci noo xamante ne li mu bëgg mooy am sëñ Abdou Xaadir daa dem ba ci nguurug sunu borom ji muy def di dindi te Sëriñ Tuubaa yàlla jox jamono baarakari fi xalaka xarakaati wa sukkoot rabbi lazi xat xaadali kun fayakun sëñ tubaa mooy noobul Sëriñ Tuubaa moo riis sëñ Touba mooy personnalité sëñ Touba mooy capacité mooy qualité mooy quantité mooy fidélité mooy sincérité loolu lépp nag dafa dajee ci Cheikh Abdou Khadir Mbacké doomi sëñ Touba yëpp nangul ko ko soxnaa wa li tax man la sa njabootu bopp ñëw nañu démb li Ablaye Wade def ci télévision bi defalu ko kenn bi weeru màggal wi teroo ma jot boro mu paas ma ko ma wax ak moom ba noppi man ko am naa lu ma bëgg de mënu ma loo bëgg man ko ku ne dafa xam sa digg ak sëñ Abdou Khadir mënu ma moom laa yaakaar man ko màggalam dafa jub si waaye dañoo bëggoon nga wax nu yaw sa kaddu kan mooy sëñ Abdou Khadir mënu ma ñëwal soo ñëwee ma def bi ma yeggee dafa yéeg ca kaw ni du ma wax sëñ Abdou Khadir sol yére yi tubaab sol garaam bu bu baax wàcc jàkkaarloog man bi sama kaddu yi daaneel mun ma Abdoulahi ma ni ko wàdd mu ni ma sëñ Abdou Khadir laa jëkk jox samay loxo ñu ko jébbalu naa ci yow mun ni ma sëñ Modou Abdou Khadir taabu sëñ Abdou Khadir moo wax baat yi ma jébbaloo ne Cheikh Abdou Khadir nangul ko ko démb ku xool démb xoolaat bii ci guddi da xam ne Ablaye Wade kenn la sëñ Abdou Khadir waaye Mbacke yaa des bokk ñëpp ko seet. Cheikh Abdou euh, président la république Abdoulaye Wade bi mu fi nekkee xar yu bari dem na waaye léegi say xar rek kay dem gisatuñu mel wax naa ko it ñaari xar ya nga ko yónnee moom it mu def ca lu rëy ni ñaari xar yi yii Cheikh Maodul Basir yónnee ma ko muy xari Serigne Touba nañ ma ko yóbbul ci jumaay Serigne Bamba jo ñu rey ko hmm, guy Masalik benn bi ñu rey ko benn bi ma tabaskee waaye deret ji war a tuuru jóge ci kër sëñ Bamba na tuuru ca guy ji Jinaan teg na ci lenn it mënu ma Cheikh Bachirou maa moom wumpanti xam naa lu ne fi moom xam na lu ne fi man tey nag Mbàkke sa njaboot ñëw na ñii ma gis nga Omar Sarr ngi nii maître Madické ngi nii Ayda Mbodj ngi nii Ayda Gaye ngi nii sëñ Cheikh Bara Dolle ngi nii Mayoro Faye ngi nii maître Amadou jàpp nu damay bañ fi mu ne ku nu catu waaye li wér te wóor mooy li Ablaye Wade defal Serigne Touba moom wax na ma it ni ma waxal ma ba Bachirou bu sama délégation bi toogee gënuma Gbagbo gënuma Kadhafi gënuma Blaise Compaoré ñu si bari ci ci lañ leen nuqee suuli leen man ma perte pouvoir bi sol garaam bubu ñu di a tàccu fu ma jëm nit ñi nit ñi ma nga sëñ Bamba rek a tax nee dama ki ma àndal la ñu àndalul nee man Abdoulaye dama ànd ak sëñ Touba sa bàyyi nag moo ko noonu bul gërëw def gërëw defee lekkal te naan da nga fan waaye ngoon na la ko tool yi mujj sa njaboot gaa ngi nii bisu sëñ Abdou Khadir bii nag man na lu ne attan na lu ne waaye na nga nu ñaanal bu baax yàlla may leen ndam ci li ñu dégmal te bu nag ni déwénee bu ñu toog nga jàkkaarloo Karim Karim itteel nañu lool asgoor la murid saadix la gëm na baayam gëm na sëriñ Bamba te am nañu yaakaar ci moom te ñii nag xeexuñu ko coruñuy tànkam ànduñoo moom ca kaw ba noppi xeex ko ci suuf gor yaa ngi leen nuyu bu ne mi ngi leen di nuyu bu baax a baax tàmbalee nuyoo bi ci ne tàmbalee nuyoo bi ci Omar Sarr ak maître Madické Niang mi nga xam ni ak maître Madické Niang mi nga xam ni moo doon wax léegi. ak soxna Ayda Mbodj. ak maître Amadou Sall. ak soxna Ayda Gaye. ak soxna Ayda Gaye. ak yéen ci des ñëpp daal. nee bu limee dafay juum. waaye tudd na ñëpp. waaye tudd na ñëpp. nee mi ngi leen di yóbbante am nuyoo. di président Ablaye Wade. nee mi ngi sant Ablaye Wade bu baax a baax. te di ko gërëm. ndax lii moom day mel ne wàcc na ko. nee lii moom day mel ne wàcc na ko. ndax li ko ci waroon lépp. nee li ko waroon Ablaye Wade ci lii lépp. ci lu baax ci lu baax. rafetal. lépp Ablaye Wade def na ko ba mu mat. nee kon moom. nee lu baax day da dul jeex. nee sunu borom dafay wax ni. jaamu leen ma. jaamu leen ma. ba keroog ngeen di faatu. waaye kon. lim fi yónnee. ak lim fi jëf. ak lim fi jëf. yóbbaale na leen. yóbbaale na leen. ba tax seen ko ci moom. ba tax séntuwuñ ko woon ci moom. kon ñu ngeen ñu ko santal bu baax. kon ñu ngeen ñu santal Ablaye Wade bu baax. te gërëmal ñu ko bu baax. ko bu baax. ndax suñu diggante ak moom. ndax suñu diggante ak moom. ni ko maître ma di koy waxee rek. ni ko maître ma di koy waxee rek. noonu la demee. lu mu fi fekk la. nee lu mu fi fekk la. ndax lu nee la ko jiitu. moo tàmbale woon ci waajuram. moo tàmbale woon ci waajuram. ba yegg si ci Ablaye Wade. diggam ak Serigne Abdou Khadir ba si ci moom mii te ne lépp rafetal na ko sàmm na ko kon ñu koy sant bu baax di ko gërëm li nga xam ne jëfal na ko Serigne Touba li nga xam ne nag jëfal na ko Serigne Touba yàlla na ko Serigne Touba fay te yaakaar naa ne fay na ko itam yéen ñi itam ne ñi itam nga xam ne ku ci ne ngeen xam ne ku ci ne mën naa wax ci moom wax ci moom ndax li ma xam ci moom ndax la mu xam ci moom ci lu baax. ci sama digg ak yow. sama digg ak yow. loo xam ne sax. loo xam ne sax. du lu ñu mën a wax ci biti. ne du lu ñu mën a wax ci biti. waaye ñëpp xam nañ ko. waaye ñëpp xam na ko kat. ndax ku ma xam ku ne. ne ku nga xam ne. xam na ko. xam nga ko. yéen itam ku leen xam ku ne. ku ne yéen itam ku leen xam ku ne xam na loola. te rafetal ngeen ko. te rafetal ngeen ko. sàmm ngeen ko. sàmm ngeen ko. jàpp ngeen ko da ngeen ko war a ngeen ko da ngeen ko war a jàppe. kon nag suñu xol sedd na guy. kon suñu xol sedd na guy. ñu leen di sant bu baax ñu ngi leen sant bu baax a baax. di leen gërëm. di leen gërëm. ñaan di ñaan ci barkeb Serigne Touba ci barkeb Serigne Touba barkeb Serigne Abdou Khadir mi borom bis mi borom bis bi li ngeen ci ëmb rek li ngeen ci ëmb rek yàlla na leen ko suñu borom defal te def ak déggoo nag ci réew mi te def nag ak déggoo ci réew mi loolu moom ñu ngi koy ñaan ci bis bi ne loolu moom sëriñ bi mi ngi ñaan ak déggoo ci réew mi ci rawatina ne rawatina ci diggante Ablaye Wade diggante Ablaye ak président Macky Sall. ak président Macky Sall. ak yen njaboot gi ak yéen njaboot gi. ndax ñun moom lu baax rek lañu xam. lu baax rek lañu xam. ñu ngi ñaan daal ci barkeb Serigne Touba. ñu ngi ñaan daal ci barkeb Serigne Touba. yàlla na suñu borom déggal leen yàlla na suñu borom déggal leen. ba jeexal lépp rek jeexal lépp rek. ci barke Serigne Touba. dana am ñu le ma leeral tuuti rek Mbacke bala ngaa ñaan. Karim Wade Cheikh Sidil Makhtar dafa jël mbiram teg ko ci taawam Serigne Moustapha te doo yàqal kenn. doo xëccoo kenn yebal ko ci moom waaye li war ci yow ci baatin ci karim ak ñëwal koy mbubb mu di ko sol ak mucc yaa ngi ko ko yónnee waaye nag li leer ku dem na ko yóbbu Cheikh Sidi Makhtar moo jël mbirum karim yónni fab taawam lu xew mu ne ko demal ma fa nga bàyyi koog loola tey def li la sëñ bi sant loolu laa bëgg mu leer na tàllal leen. loolu laa ñu ngi koy fas ci bis bi. nee na loolu ñu ngi koy fas koy fas ci bis bi. musuma ko wax ci rajo nag. mais musu ko wax ci rajo nag li mu wax ci diggante président Macky Sall ak Ablaye Wade baayam musu ko wax waaye mi ngi wax nag tey. maa ngi koy ñaan bu baax mi ngi koy ñaanit bu baax baax. ci yéen njaboot gépp nag. suñu borom déggale leen suñu borom déggale leen waaw. leen amiin te taal amiin. dana am de. amiin bàq ji amiin. Omar Sarr de yow laa mos a gis tey mu toog. Omar de yow la Omar Omar kontaan naa yow xam ne woon nga sëñ Bay sa waxoon nga ma amin te nga ñaanal sama waaja Ablaye Wade misi misi ngi ngiy président inauguré inauguré rek nee na peex bi nga dem wax a goo inauguré Ah, kon jërë ngeen jëf mbokk yi noonu ngeen ko gisee kon ah, loolu moom moo xewoon ci màggal Serigne Abdoul Khadr Mbacke ci suba si incha allah xam naa ni cérémonie bi ginnaaw gee la ñu koy amal waaye lu ci mënti am rek lépp mën ngeen koy bàyyi xel ci seen mobile TV Al Azhar Touba. Ah, lépp bépp xew-xew boo xam ne mi ngi am ci yoonu muy amuñ ci xaaj ak seen lépp la ñuy jël na mu gën a rafetee wan leen ko ñu ngi leen di sant leen gërëm leen di daje beneen yoon jërë ngeen jëf.